nag dama am am mbégte ñoo tok fi ak suma kilifa ak euh, responsable chef de service di nekk fi yépp muy représentant madame la directrice de la SAED chef SAEDER directrice SEDAF président des chefs de village et chef de village président des éleveurs conseillers municipaux monsieur représentant mairie, Donc, nous fii ñu ne tax dañ sargal ndax retraite Je suis trop. ba ma gërëmee ginnaaw bu ma gërëmee samay ñaari waajur yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen xaarale àjjana yàlla yokk yërmande seen kaw damay ndokkale sama soxna siy toog xam ngeen man maa ngi fii tey njaboot baa ngi kaw la te awma ci benn jaaxle tey actuellement ñoo njaboot bi sew bi sa ñoo fa nekk ñoom moom mi ngi ni toog mais sama xel dal na loolu yëpp nag ginnaaw yàlla ak yonent bi moom mi moom mi la liggéeyam la moo tax soxna si maa ngi lay gërëm di la sant di sant suma doom yi tamit di ñaan yàlla yàlla def leen mag yàlla barkeel leen waaye di gërëm sama mbokk yi ma fekk fii Ross yaay boy maa ngi lay gërëm di la sant lan la ma seedi ah. Ibrahima madame Sar jërëjëf jërëjëf ci ni ngeen ma tertoo ni ngeen ni ngeen ma jëlee boole ma seen biir ba ma ñëwee Ross Béthio wéetu ma war ngeen ma ne yeneen samay kilifa yeneen samay mbokk jërëjëf ci loolu di leen gërëm di gërëm tamit sama mbokk di nekk fii ci Ndar pom xor parce que man kat pom xor bii laa cosaanoo sama papa pom xor bii la jóge liggéey fonctionnaire rek moo tax ñu def Sénégal wër Sénégal bi yëpp daanaka ba man ma juddoo Sokone donc gërëm sama mbokk ñi ma war ne seen mbokk laa seen doom laa nekk fii ci Ndar nekk Ndakaaru nekk fépp ci Sénégal ci seen niñ ma jàppale ak ci seen ñaan ma bëggoon ngeen may ma ma sant ñi nekk fii ñi ma doon àndal fii yëpp di liggéey ci arrondissement bi mooy suma collègue yi suma collègue yi maa ngi dégg adjoint sous préfet yi mais sumay kilifa te ma jiital ci sama kilifa bi muy madame le sous-préfet et ma jaarale ci moom préfet yeeg adjoint préfet yeeg adjoint gouverneur gouverneur ba ci ministère ministre de l'intérieur préfet nga gërëmal ma leen santal ma leen di beral nag loxo ngërmande président Macky Sall parce que nag ginnaaw coobareem moom moo tax tey ma ñëw fii yàlla na ko yàlla jàppale moo xam lu mu bëgg ci réew mi fu mu bëgg yóbbu réew mi yàlla na ko ci yàlla jàppale ba mu fa yóbbu fa réew mi donc ginnaaw coobareem moom moo tax ma ñëw fii tey nekk adjoint sous préfet ma nangu ko nag te dégg ko nag sawar ci lool ndax bëgg sama réew bëggoon naa nag ki may war a remplacer fekkee lii pour won ko ne ko administration territoriale neexul parce que liggéey bu métti la amul bëccëg amul guddi askan bi nga fi toogal donc comme ni ko tubaab di xam nu ñu ko xeec ci olof sacerdoce la fa nangu jaamul ci askan bi nangul leen mais nag di doxal yoon metti na metti te sax mi parce que c'est ça aussi le sens de la vie problème du duñ fi y a le mais yalla soutral nañu ci suñu ci ndimbalu suñu kilifa bii yàlla yombalal nañu ko bañ ci am ci ay ndam musuma def dara war a jël benn acte te àndu ci saa yi ma yebale na ma kaay dem fii ma ne ko ñaanal ma tàllal suma loxo mu ne ma dama ko ne mais préfet defal ma ay duwaa mu ne ma mu ne ma ma ma gën dem suma yoon yàlla na rek suturaal na ma maa tax jërëjëf madame la préfet euh, ci liggéey boobu duma tay dine su ko métti na mais sant yàlla parce que tamit dama ko seqaloon ñoo xam ni dañ ma ko dañ ma dimbale ci sama liggéey bi sama xel dafa dem ci chef de village yi jëkkati seen président yi yombalal ma trop sama liggéey sama xel dafa dem ci waa SAED yi jiite ci madame la directrice de la SAED sama xel dem ci waa SEDAF SEADEL ENAM le service de l'élevage merci beaucoup ak l'élevage, élevage y yu un arrondissement bi service Pape Gora ah. vraiment taxawu ngeen ma jàppale ngeen ma liggéey boobu tamit dama ciy gërëm que ak seeni adjoint ak l'ensemble des conseils municipaux justice fàttewuma tamit organisation association yi nekk fii organisation yi nekk fii ñoom ñëpp jàppale ñoo mais xam nga su ma waxee euh, euh, euh, association organisation su ma xel ci ADEV lay jëm bu Faly Seck man faale nit ñi ñoo koy xoolee maire actuellement c'est le maire mais man ba ma koy xam temps yow ADF la nekkoon di def liggéey bu am solo te nag jamono googu di jàppale sous préfecture bu Ndiaye ci suñu wàllu liggéey ba mu rawatina nag ba ko yàlla fale mu doon maire moo tax maa ngi koy gërëm di ko beral loxo moom Fally bañ naa ko ba ne ko sa sa alliance bi nga def xaw ma lan pour la vallée du développement du du de la vallée man vallée kii doo d'accord ma ci da nga waroon def alliance pour le développement du Sénégal nga xam ne boobaa sax comme maa ngi dem ñibbi Kaolack ma nga am ku la toogal Kaolack ndax c'est tellement dama gis moom nu mu taxawee di jàppale askanu waalo lu baax nag du ñëpp Sénégal ñëpp ko bëgg su sawé nak mu ñëw ba kaawla ba Sénégal bi wëral Sénégal bi yëpp yàlla na ko may kattan bobu et yalla na dépassé ci dimension ak ADE bobu alliance pour le développement de la vallée. ñu def ko alliance pour le développement du Sénégal. parce que dans les dans les compétences et les capacités. donc maa koy gërëm diko donc tey bésu mbégte rek ak bésu gërëmaate bésu sant leen waaw ci ni ngeen ma jàppale ba yàlla suturaal ma ba ma ñëw tey ji retraité di dem di ñibbi moo tax sama euh, sama sama sama oyof naa dama oyof je sens léger vraiment dina alhamdulilahi rabbil alamina

son excellence euh, monsieur le président de la république monsieur Macky Sall dafa jël Ben décret euh, pour wax ne ki jeexal na ci walu administration motax ñukoy euh, sargal tay ci kanamu famille ci kanamu ñi nga xamantene ñom la doon liggéeyal moy man mi déjà en tant que sous-préfet mais ak jigéen ñi nga xamantene ñoo yor service au niveau de l'arrondissement de Ndiaye na Seynabou Diène mi nga xamante ne moo yor CADL te ñu soppi ko léegi mu tudd centre de promotion du développement territorial donc moom yaakaar naa ni duma ci revenir ndax ko ne wax na ko moom mii wax na ko am na vraiment benn lien bu leen lié te man mii xajuma ci ay mbokk lañu sax daanaka ndax euh, saa su ne ñu ngi leen di gis ensemble même su ma mënul dem ci yenn représentation yi ñoom xëy na ñoom ñaar ñooy ànd Madeleine Dibor seen mi nga xamante ne aussi moo yor SEDAF bi naam daf ñu fi fekk euh, après le départ de Satou Diatta yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana kooku tamit nekkoon jigéen jàmbaar ndax biñ koy xam ñu euh, département Dagana euh, en qualité d'adjoint au préfet mais le préfet donne tu ci le liggéey même collaboration bi la amoon ak euh, ki nga xamantene moy mooy Koné Madeleine aussi bu ñëwé c'était la même chose sans oublier madame Doy nga xamantene mo nek nekk sayet yaakar na ni mom suñu waxé madame doy rek c'est son c'est some partenaire ndax man duma woo madame Ndoye sax dam koy ne ko woowal sa xarit ndax ay relation forte ñu am yaakaar naa ni looloo tax madame Ndoye bu may tàggu mu naan ma sa xarit mooy ñëwaat ndax Alassane Ba aussi on a eu les mêmes relations bi mu fi nekkee ingénieur délégué te ma fekk ko fi c'est le lieu aussi defal ko un hommage appuyé et mérité ndax ñëpp xam nañ ni ki bi may doog a ñëw am na coono yu métti yi ma doon dëkkee ndax sama auto dafa paanoon biñ ma affecté mais il a mis à ma disposition un chauffeur et un véhicule nga xamante ne période élection 2019 moom moo ma doon pour ma mën a matal liggéey bi donc c'est l'occasion de remercier ki nga xamante ne mooy Ba remercier aussi madame Doy ndax ci tànku alsan rek la toppoon lépp lu ñu soxla woon ci wàllu euh, accompagnement que ça soit véhicule wala personnel dans le cadre des élections vraiment elle n'a pas rechigné accompagné nañ donc nous ngi koy remercier ci sans oublier aussi ñi nga xamantene ñoy les chefs de poste vétérinaire car nous ni adjoint mom mo don doon coordonné ñom naam nga fii ñoom Koli euh, gay aussi yalla def na mu retraité moy ki yoron chef de poste euh, bu sans oublier Pape Gora ak eh, suñu fantomas bi mu tuddati chef de poste ronk bi voilà ya naa ni ñewul sax moo tax ma tuddé ko fantomas ndax mom niw na luñ koy gis bon bu dé ñew na tamit sante yalla voilà il m'avait dit donc yalla nako yalla yëkëti mom tamit mu tané si jamm ya naa ni maire yi aussi amna lu bëri lo xamantene liggéey na ci ak euh, ñoom te su ma nee maire yi rek dama ciy boole les secrétaires municipaux avec les adjoints au maire ndax liggéey bi bu waree mat rek ñoom ñoo ci jàpp sànq madame le maire euh, mu ngi doon wax ñoom dañu am fierté parce que am nañu euh, sous-préfet jigéen CEDAF jigéen CADL jigéen bu mu daalelee nag ma ne ko fàtte nga sa bopp parce que am nañu maire jigéen tamit ah yaakaar naa ni disposition yi yëpp jël nañ leen ba élection yi passé 2023 vraiment kilifa yi soññuñu ba parité bi homme femme ñu mën ko respecté yaakaar naa ni looloo tax ba arrondissement Ndiaye euh, depuis 2022 léegi am nañu vraiment une parité absolue au sein des des des des bureaux municipaux pour certaines communes ak euh, au niveau euh, de certaines euh, commissions donc lolo aussi yaakaar naa ne euh, ko rere mbir Benen bi mooy les chefs de village yaakaar naa li ci bëri man ñi wo, woo les présidents d'association des chefs de village le plus souvent adjoint moi mooy wo, pratiquement ñëpp mais gis nañ ni ki collaboration bi rafetna na bu ñu gisee seen teewaay bi tay moy woné ni ki vraiment amon nañu de très bons rapports c'est loolu la xaar quand même ci adjoint au sous-préfet parce que au-delà de casquette nous voulons bu fi nekkee coordonner luy action de de développement donc dañuy le chef de village pour ndimbal bi ñu ko dimbale ci de liggéeyam euh, demander aussi de euh, redoubler d'efforts ndax liggéey bi yombul dina am ku ko fi wuutu xëy na boo gan aussi

ñu mujj yaakaar ni moom moo nekk le sous-préfet mm-hmm. yu bëri bu ñëwee dafay wax certes au nom du sous-préfet de l'arrondissement mais le fait que ñu koy gis saa su ne rek dem na ba nit ñi yaakaar ni xëy na moom moo yor arrondissement bi mais benn la rek parce que texte yi lu ñu wax mooy quand le sous-préfet n'est pas là son adjoint le remplace de plein droit donc loolu bu ñu ko waxee rek mooy tënk na lépp donc su ma fi nekkul aussi jàpp leen ni ki sama jëmm ngi teew te yaakaar naa ni lépp li ma ko euh, waxoon mu représenté ma ko euh, matal na ko te maa ngi ko ci félicité di ko remercier parce que nit ki donte am nga expérience bi parce que yàlla def na maa ngi dugg commandement depuis 2008 maa ngi cay bëgg a yàgg ndax yàlla dafa dogal bi ñuy dugg euh, administration à l'ENA ay ndaw lañu woon ñu Tel ñu dugal territorial ndax président Wadlou lu une promotion des femmes dans l'administration territoriale te faisions ñun euh, on faisait partie des pionnières à part euh, Viviane Bampassi ak euh, Rachel Colli ak ki nga xamantene moy sous-préfet Grand Dakar Hadi on est les trois ñi ci topone mooy aw bokkum man ak Aïssata Sall mi nga xamante ne finalement gën na donc loolu euh, yaakaar naa ni bu ñu ñëwee am des hommes de la carrière de Mody Koné di ñu jàppale di ñu accompagner si liggéey bi yaakaar naa ni réussit rek la mën a am donc lépp lu ñuy félicité par rapport ak organisation ak tâche yu difficile yu ñu mën a gérer nañ leen ci boolewaale ndax bu duloon ñoom it dina doon xaw a métti lool pour ñun donc euh, di la gërëmaat encore une fois par rapport ak liggéey bi nga xamante ne def nga ko à nos côtés di ñaan yàlla vraiment nga mën a euh, am une retraite paisible parce que yombul aussi euh, nga liggéey ba am 60 ans vraiment amul lenn lu takk ci sa wàllu carrière loolu yaakaar naa ni agent bu ko am boo retraité da ngay sant yàlla bu baax te yaakaar naa ni li tax mu am ko dafa fekk derrière tout grand homme y a une grande dame donc euh, c'est le moment aussi madame de vous remercier de vous féliciter d'avoir été à côté de lui ndax tamit nit ki bu mënee liguey ci dal and ci ak euh, euh, cawarte dafa fekk am na ku nekk ci wet gi di ko gën a euh, ñaax pour mu gën a góorgóorlu j'en profite aussi pour euh, euh, Sargala, hein, c'est aussi parce que ñëpp xam nañ ni ki sous préfecture nuyu c'est l'occasion aussi wax ni euh, nit te yar amul am lu bëri te boo amee yar gi ba tàggat sa am da ngay sant yàlla donc loolu aussi ñu ngi koy euh, témoigner ci njaboot bi nga xamante ne yàlla suturaal na la ba nga am ko te ñu nekk ci yoonu euh, lislaam yàlla na leen yàlla def ay euh, mag yu am ñam vraiment ñu gën a dolli góorgóorlu ba yàlla def leen mag yu barkeel di gërëm sa famille aussi seen teewaay fii wone na rek ni ki vraiment homme de valeur nga parce que mënoon nañu def sargal mun nañ wax ah mën nañ woote rek wala yebal kenn rek mais gis nañ ni ki ñoom yëpp mobiliser ñoom ñëw donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que nit yi aussi ñu ngi koy ñu ngi koy nattee ci taxawaayu mbokk yi yaakaar naa ni mbokk yi taxaw nañu dañ ko ci rafetlu bu baax di leen gërëm di leen euh, sant di wax ni ki éleveurs yi aussi gis nañu seen seen taxawaay ñoom ak euh, producteurs yi yaakaar naa ni moom aussi c'est l'homme des des des médiations du benn du ñaar par rapport ak ruur yi bu amee ñu ñëw pour euh, jafe-jafe yu am sur le terrain man su ma amul jot ci ñoom ci moom laa ko leen di euh, transférer te yaakaar naa ni saa yu ma la saa yu ma ko joxee benn mission bu muy dox rek ci wàllu woowu réussir na ko donc j'en profite aussi di def appel aux éleveurs et aux agriculteurs ñu xam ni ki ay dëkkandoo lañu te vraiment dëkkandoo mbokk la te mbokk alalu yàlla la lépp li nga xamante ne day indi jafe-jafe nañu fexe moytu ko te ñu xam ni euh, xëy na seytaane mooy ñëw mais bu jàllee rek jàll na ñu dellu si waat ci mbokk mi xam ni ki ñun yëpp benn la parce que àdduna amul solo yaakaar naa ni euh, démb ak tey ak ëllëg rek lañ fi am démb ji moom mooy li nga xamante ne weesu na pare tey jii nag mooy li nga xamante ne ñu ngi koy def yal nañu yàlla may kattan mottali lépp li nga xamante ne mooy mission yu ñu yor ëllëg nag moom suñu borom a ko moom ku nekk war nga ko sedd ndax ëllëg moom ku nekk yaa ngi yor sa place si biir bàmmeel te yaakaar naa ni lépp lu ñuy def ci jëf moom lañu bëgg ëllëg si biir mu doon loo xamante ne les derniers comptes am ne suñu borom xëy na bu ko tegee ci balance bi xëy na dinañu seen aljana firdawsi en tout cas loolu laay ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi rafetlu nañu seen ñëw bi di des rek mooy ñaanal moo di kone vraiment yàlla may ko ay at yu bëri bëri bëri te certes retraité na administration mais soxla nañ ko toujours en tout cas moi saa yu ma soxlaa rek ki nga xamante ne dina mën mën jàppale si liggéey bi je je je pas élection sax mën naa la mobiliser nga ñëw jàppaat encore ci liggéey bi donc yaakaar naa ni comme jeexal na ci wàllu administration du ma ne wàcc na liggéey balaa mu may mu may mu mu may rappeler à l'ordre mais damay ne rek jeexal na ci wàllu administration ñaanal ko yàlla yàlla ubbil ko yeneen xéewal yoo xamante ne dina ci gis boppam te ñun aussi ñu gis ci suñu bopp donc di leen gërëm di leen sant loolu laa bëggoon wax voilà waaw jërëjëf Omar. Euh, mangi am mbégte bu baax a baax tey ñëw tey euh, fekke ji euh, cérémonie bi nga xamné suñu collaborateur monsieur Mody Koné moom lañ fiy sargal mu nek ko xamantene adjoint sous-préfet de Ndiaye la woon liggéey fi liggéey bu rafet yalla dogal mu muy dem retraite ñu taxawon ñu ñëwoon tey ñu yebalul ñu fi tay ñu représenter la directrice de la délégation madame Ndoy à travers lui aussi le DG de la SAED Aboubacry Sow euh, ci cérémonie bobu euh di wax rek ne euh la euh, lañu am mbégte la ñu am ci collaboration bu rafet bi nga xamné monsieur Koné euh adjoint sous-préfet ak le sous-préfet en personne euh def nako euh suñu digënté ñom ak ak la euh depuis buñ fi fi ak légui wax dëgg yalla rapport yu rafet lañu am collaboration bi rafet na fuñ leen mos soxla euh ñu ngi suñu wét ñom tamit fuñ ñu mos soxla ñu ngi seen wét donc loolu lañu ñaan dal vraiment ñukoy ñaanal. yàlla dimbale ko mu def retraite bu paisible delluwaat ak njabootam geste bi madame def vraiment xeeb na ko euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi continuer rek di di di di di di rafetlu continuer encore di di di di di gën rek di di di gën di ñaax nit ñi ñu gën a service yi ak administration bi yëpp ñu gën a jàppale pour en tout cas le développement de de de la localité quoi. xanaa am lu ñu metti lool rek waaw sant yàlla bu baax sant yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam moo di ko ne ku baax la man li ma gën a neex si moom saa yu ma xëyee fajar di dem di doxantu ji dama koy gis mu yore kurusam dem jëndi mburu yóbbul waa këram doxantuwaale kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla li mu bëgg si àddina yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla may fan gu gudd ak wér may ñu ko may ko njaboot gi wax dëgg yàlla lu ma neex la lu ma kontaan la lu ma lu ma lu ma kii la te encore moom daf daf di nitu nit ñi doo ko gis mu mer foo ko fekk boo ko fekkee fale loo looy def ci li looy lijjanti ci ay kayit moom moo koy jëlal boppam moo koy lijjanti ba mu àgg maa ngi koy nuyu di ko sant wa salaam. ah li ñuy yëg-yëg de suñu yëg-yëg de xanaa yëg-yëg boo xamante ne xol bu fees ndax ko yàggal depuis 2017 ba ñu duggal xëy na 3 mois moo ko fi manqué pour mu def fi 6 ans. six ans du benn fan du ñaari fan yawee une familiarité boo nga xamante ne dox na suñu diggante ba nga xamante ne tey jii dëgg yàlla xol yëpp tooy nañu ndax non seulement dafa nekkoon suñu autorité administrative mais mën nañ ne càmmeñ la papa papa la ndijaay la lépp la te loolu nga xamante ne moom la moom la ñu ji soxna am si fii ñëw ak doomam yi moom la ñu yooyu la ñu wax dëgg yàlla mu nekk loo xamante ne daal tooyal na sunu xol yi ndax bu ñu sañoon tey jii dafiy toogaat toogaat fi toogaat mais nag comme yàlla loolu la dogal ndawal buur dëkkul fenn waaw ki mu ki koy wuutu nag moom moo am sas ndax li ñu nekkee woon nag moom bu fekkente ne kooku ñëw na day bu melee ni moom wala mu raw ko dina neex xanaa ñu jéem ko jàppale rek moom itam bu ñëwee rek ba nga xamante ne séjour am fii dina oyof muy ci wàllu liggéey bi muy wàllu fépp ci wàllu wàllu collaboration bi ak tous les services techniques yu fi nekk ak tous les chefs de village tous les élus ñun ñëpp ñu jàppale ko rek ndax ni ñu jàppale woon moo di ba tey jii mu am ndam lii xëy na moom bu ñu ko jàppale xëy na moom naa am sax lu ëpp waaw kay sama doom Umar tey jii moom xool yi jeex na tàkk ndax yàgg moom. ak nit ci jàmm ak salaam ak déggoo ak liggéey bu am solo tey jii mu dem ba di tàggoo ak yow xool dana jeex yaram dana daw waaye nag ñu sant yàlla ndax kuy liggéey ku nekk dañu ñaan yàlla nga dund ba retraité ak jàmm te retraite yombul kon loolu la ñu sante yàlla ndax am na ñu liggéey te retraité wuñu kon ku yalla may nga liggéey ci place ba retraité def fa ful ak ngor ak jom ak def li la war ak déggalé nit ñi jubale nit ñi defare digënté yi ba tay ji ngay dem dana metti waaye nag dañuy ñaan yalla fi mu jëm yalla naka ko gënal fu fi mu joggé ki nga xamni ni lañu fi indi yàlla naka ko yàlla jaarale si Mody Koné mii nuy tàggool moom tey ba mu ñëw fi si jàmm liggéey fi si jàmm def fi résultat sax bu passé résultat bi ñuy gis si Mody Koné mu ànd ak ñi mu fi fekk ak personnel bi mu fi fekk si jàmm ak population bi yëpp mu déggook ñoom ñoo ngi kiy dalal jàmm moom it yàlla na ñëw ak jàmm te fekk na fi si jàmm. asalaamaaleykum euh, Omar ñu ngi lay nuyu bu baax ñu nuyu mbokku internet Walo Digital yëpp. ñu ñuy seetaan à travers sa chaîne euh, tey suñu xol dafa tooy mu am lu ñu ressentir bu baax ba yàlla def sax ma ñu tuur xéewal ndax euh, euh, dañu dund événement bu triste tey xam nga séparation dafa metti xëy na séparation bi sax du séparation bu bu brutal mais dafa nekk la nga xamante ne sunu borom daf ko dogal ci suñu nijaay suñu xarit muy monsieur Koné adjoint au sous-préfet de Ndiaye yalla def na bima fi en 2019 yagul dara xana ay quelques semaines rek Nous def inondé mu ñëw ñu dund dund ci mbokk presque trois ans ya nga mu ngi di ku baax nitu bëgg ma bëgg sama famille mi am bu ñu vacances ensemble bu xale ma des tonton mu may conseiller di ma sëyloo ci la nga xamante ne jafe na dañoo jéggi sax cadre trabaay daf may sëyloo bëgg sama borom kër nekk sama xarit su ma amee sama soxla ma ñëw wax ko mu digal ma digal bu baax xanaa di ko ñaanal rek suñu borom defal ko retraite bu paisible yàlla defal ko li mu bëgg uh, en tout cas sank ma ngi ma tonton tul mën na liggéeyaat mais yàlla naka yàlla may beleen liggéey ba nga xam te dina si mën a euh, jàpp boole ko ak retraitam di sar ka sargalaat nuyu famiyam bu baax di nuyu madame le sous-préfet de Ndiaye mi nga xamante ne vraiment ñun ñoo nekk équipe mu nekk suñu kilifa ñu topp si gannaawam fii ci arrondissement bu Ndiaye ci département bi di liggéey bu am solo macha nuyu chef de service yi fi nekk yëpp. def mention spéciale nag sunu kilifa yi nga xam ne ñoo ñu indi fii muy ministère de la femme ak directrice sénat yi nga xam ne ñoo ñu fi tax a toog te wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy jàppale di nuyu tous les maires de l' arrondissement de Ndiaye di ci jukki le maire de la commune de Ross Béthio muy monsieur Faly Seck mi nga xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi béy waaram bu baax a baax a baax a baax ci ci tund gi. di gis action yi muy def di ko rafetlu bu baax en tout cas tey uma xol tooy na ah en tout cas aussi di eh, yëgal tonton ne ko téléphone yaa ngi fi fenn soriwul. daa ñu dégganteeg moom di saafanteeg moom di ko nemmeeku moom tamit ah di dinañ ko aussi di ko woo comme ni ñu daan def di ko laaj conseil mais di ko ñaan tamit ah mu bañ ñoo fàttera daal <laughs> mu ñuy fàttaliku euh, xelam bu demee si ñun rek on est vraiment disponible disposé à parler avec lui gën a yaatal suñu relation jot nañu xamante yàlla suñu borom rataxal lépp lépp lépp rek macha allah. waaw ñu am mbégte bu baax teew fii tey doon ñaanal monsieur Koné si retraite bi nga xamante ni borom dogal na mu dugg service ba jeexal si jàmm. ñu am mbégte bu baax a baax dafa nekkoon si biir commune bi àndaloon feek sous-préfet Guèye Diouf. mu fekkoon ñu fi ñu ànd ak moom di liggéey liggéey bu rafet ñu gisoon activité femmes yi dañ ko doon def bu monsieur Guèye Diouf ñëwul monsieur Koné daf fay ñëw am taxawaay bu mat sëkk ànd ak jigéen ñi di leen jàppale fépp. te ku xam mbooloo jigéen xam ni ñoom seen doole dafa néew trop dañuy soxla ku leen gunge ku leen di jàppale ak ku di leen teete mu amoon si matuwaay nag bu mat sëkk kon bu nu demee ba yëg ni mi ngi dem retraite dafa jaaduñu ñëw ànd ak moom bokk ak moom bis bi bokk ak moom bànneex bi ñaanal ko. mu dem noppaluku ji si wetu famille am ñu si kontaan bu baax a baax di si gërëm ñun si àndaloon ak ñëpp mais itam du ñu fàtte di gërëm madam Oumou Diamanka bi nga xamante ni moom it àndoon na nag moom si desitu li nga xamante ni moo doon ay compétence am ñu koy ñaanal ki nga xamante ni moo ñëw di ko remplacer mu mel ne monsieur wala mu raw ko naam nag mu raw ko dina jafe lool. mais ñi ngi ñaan daal yàlla nga xamante ni moo def xéewal ak jàmm ak sutura si biir arrondissement Ndiaye képp koo xamante ni yaa ngi fi ñëw di chef de service di liggéey si administration yàlla jubalee la ak askan wi communauté bi ba nga mën a matale li nga xamante ni moo tax ñu indi la fi ba nga dem sa si jàmm. sous-préfet muy tënk sas na leen de ci wàllu collaboration jàppale euh, euh, ci wàllu gën a waaw loolu sas na te mu nekk itam loo xamante ni lu am solo la comme ni mu koy waxee rek bu fekkente ni dañ ñuy aar aar bi dafa war a jiitu si ñun li muy wax ni xëy na euh, sàngu sutura bi lu yàqu moo ko yàq. loolu itam war nañ si am taxawaay bu baax a baax ndaxte gis nañ ni Ross Béthio nekkatul commune bu ndaw arrondissement bi itam nekkul arrondissement bu ndaw kon ñun ñëpp benn nañu lépp loo xamante ni dañ ko war a taxawaay di sàmm nit ñi di sàmm doomu aadama ñun ñëpp dañ si war a bokk ànd ndax ñoom xëy na fii population bi di yegg ñoom yegguñu fa kon ñun war nañ nekk seen tànk nekk seen gët. mu nekk sensibilisation bu am solo te am na nañ yaakaar ne askan bi yëpp dégg nañ te incha allah daan si def ay jéego yu am solo. ñuy am mbégte bu baax a baax ak contentement di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla na dem si jàmm ki koy remplacer itam yàlla na ñëw si jàmm fekk fi askan wi si jàmm merci beaucoup. waaw Mody Koné Omar daf fi ñëw en 2017. yàlla sunu borom dogal moom ak sous-préfet bi nga xamante ni moom la fi nekkal moom itam 2017 lan ko affecté woon fi nga ni mooy Dagana mu nekk adjoint préfet mais moo di ko ne nekk nit koo xam ni géej juuf la fi nekkaloon mais nekk ak moom nekkin wu rafet ci wàllu administration bi fu mu ko yebal mu dem euh, waaye bu ñëwee am dayo yi taxawaayuk kooka waaye arrondissement bi nekk cinq communes commune yëpp tey jii boo fa demee dañuy yaakaar Koné mooy préfet arrondissement de Ndiaye lan moo tax mooy Oumou Diamanka mu baax mi nga xam ni dafa jël darajaam jël ay cëram yëpp mu delloo ko moo di Koné fépp fu mu war teew mu teewaloo ko fa mu teew fa waaye Koné itam nekk nit ku sérieux nekk nit ku am ngor nekk nit ku am dignité ku am diine koo xam ni fu mu dem rek ci arrondissement bi ci juróomi communes yi fi ne dafay wane ni moom fii la bokk dafay wane ni dafa war defar kon daal mu nekk nit koo xam ni histoire u Sénégal dootu ko fàtte mais histoire u Ross Béthio dootu ko fàtte bu nu fàtte ni jaar na ci politique moo tax pour mu mën gérer politiciens yi du jafe ndax nekk na euh, deuxième secrétaire fi nga xamante ni mooy conseil régional euh, bu Kaolack deuxième secrétaire élu kon loolu du lu ndaw kon bu son excellence la président Macky Sall amee ci moom yaakaar wóolu ko dénk que li nga xamante nii moom mooy mu nekk adjoint su préfet l' arrondissement de Ndiaye mu doxal ko ba tey jii yàlla sunu borom dogal muy jël retraite ndax ku nekk xam na ni 1963 la gane àdduna kon bu demee ba tey jii mu jël retraite di dem askan waalo yëpp gunge askanu waale yëpp ñaanal ko sargal ko ñaanal ko yàlla sunu borom guddal fanam wéral ci ram mais sàmm ko sàmm njabootam mais coonaam ci liggéeyam doon noflaayu njabootam en tout cas Omar pour gàttal daal kone ku baax la koo xam ni am na nañu adjoint bu ne nag ndax ñetti adjoint la arrondissement bi amagum diiru arrondissement bi taxaw ak léegi 1960 la mi ngi fukk ñaar fukkeelu nit ak juróom-ñeent ci ñu ko jiite la ko dale ci chef d'arrondissement ya ba bi 1980 bi nga xamante ni sous préfecture mi ngi ñëw tey jii ki fi nekk doon jigéen mu nekk umu jamanka kon bu góor nekkee adjoint ba pare jox ko cër bu mat sëkk buy wane ni jigéen sax newu fi mais nag dafa jàpp ni kilifa moo fi ne kon ko ne ku baax la. waaw am na luy dagg ci ñoom di dem dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ndax xëy na jokkoo bi dootul jafe ndax téléphone yi waaye nag nit la woon koo xam ni dafa daan def médiation ci li nga xamante ni moom mooy conflit yi am ci diggante agriculteurs yi ak éleveurs yi. nit la woon koo xam ni comité Grand Digue Téelel bii ku ne gisoon na li ci xew ak yeneen i comité yoo xam ni ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy arrondissement de Ndiaye. mais terewul fu ne rek moom la fa sous-préfet di yebal bu demee taxaw fa taxaw fa taxawaay bu mat sëkk te du far fenn taxaw ak mandute taxaw ak taxawal état taxawaay bu rafet taxawal askan wi wane ni ci askan wi la bokk kenn ku si ne lii sa cër mu jox la ko kon ku mel noonu. daan gunge jigéen ñi ci seen i jataay daan présider session yi nga xamante ni mooy am ci conseil municipal yi nga xamante ni ñoo ne ci dep ci arrondissement bi euh, daan gunge ndaw ñi ci li nga xamante ni mooy activité yi ba ci préscolaire bi gën a tuuti xeebu ko woon ci ay feetam kooku buy dem nag ah Umar askan bi seen xol dina tooy nit ku rëy nit ku mag nit ku am personnalité ku bëgg askan wi moo daggee ci askan wi tey jii di dallu ci li nga xamante ne nag moom mooy xëy na xëy mi mu amoon ci wàllu administration mais nag jeexalul comme ni ko sous-préfet waxee ndax saa ko nit ñi soxloo nag dinañ ko woo ngir mu jàppale leen ndax tey jii personne ressource de qualité la boo xam ni am ku mel na moom dina jafe waaw ñu lay ndokkale yow tam Omar Waalo digital di ndokkale presse bi nga xamante ne ñoo ne ci département bi yëpp mais rawatina ci yow euh, di jaajëfal rek di ñaanal itam madame Ndoye mi nga xamante ni occasion la euh, mi ngi dem alsaan ba di ko wuutu diggante càmmiñ la ak jigéenam ñoom ñaar samedi la ak dimanche bis xajul seen diggante bu kii demee kii wuutu ko kii di demaat kii dellu siwaat kon defe naa ne rek euh, sayet juumunu xam nanu la ñuy def waaye madame doy ñu koy ñaanal moom tam yàlla sunu borom defal ko tawféex defal ko sutura yokkal ko fa mu fa mu jëm kii ñëw daal na roy moom itam tànk moo di ko ne te xam ni daal moo di ko ne daf fi ñëwoon pour arrondissement bi daf fi ñëwoon pour représenter son excellence daf fi ñëwoon pour topp kilifaam di ci ndigal rawatina ndigal yi ni yëpp moom mooy ndigal yi baax yi doon na ko dox nin ku ko sante